asalaamaaleykum internet yi suivre Leewtoo TV mardi 21 juillet ñu ñëw ak lu gën a ci yéen ñu tàmbale ko tey ak Leewtoo point net fekk fa Balla Diouf mu ñëw ci entretien exclusif ak ki nga xam ne nii mooy Ndeye Coumba Fall mu ñëwaat tam ci li nga xam ne mooy carrière ak li tax mu dellu siwaat ci làmb bala nee na du lenn lu dul dafa amagul âge retraite te tey di santé may na ko mu dellu siwaat ci làmb ji continuer di bëre jéem a génn par la grande pot Balla leewtoo point net mooy li waral mu quitté li nga xam ne ni mooy écurie Yoff daal di dem fekk ki nga xam ne Papa Sow fële ca Jàmbaar Wrestling Academy foofu tamit ci bu nga xam ne fa la samp ay fa la samp ngembam nekk na fa entraîneur écurie ba en même temps di fa bëre parce que loolu la ko Papa Sow wax ne na ko duma wut beneen entraîneur bu dul yow yow yaa fii nekk di ñu jàppale di ñu tette comme yaa ñu jiitu ci lamb leneen loo xam ne nii Balla wax na ko nag ci bëgg-bëggam ak retour bi nga xam ne nii effectué na ko maanaam muy bëreeg euh, ma ñoon bi nga xam ne moo nekk caare nee na daal loolu la bëgg ci retouram bi bëreeg euh, kee nga xam ne moo nekk gëm sa bopp leneen bu ñu jógee foofu nag dañuy daal di dem ba tey ñu des ak yéen ba tey fële ca leewtoo point net ak euh, Lac de ñu ñëw nag ak papier daal di xamal ni ki nga xam ne nag mooy le grand perdant du kenn ki nga xam ne nii mooy Lac de Guiers 2 bi nga xam ne Thialis taxawal na tafaatin Tine ak Boy Niang 2 parce que nag doon nañu wax combat la de tafaatin nekkoon na combat boo xam ne amateur yëpp plébiscité nañ ko woon tey Thialis daal di taxawal Tapha Tine ak euh, Boy Niang mu daal di nekk le grand perdant ginnaaw bi nga xam ne ki nga xam ne moom lañ ko bëggaloon am na combat ñu daal di dem fële ca sunu lamb euh, ñoo andil ñu tafaatin Tine Tapha en danger contre Boy Niang 2 loolu la suñu lamb def tey ci xëtam bu njëkk ginnaaw bi ko Ama Baldé daanee mu dem amaat beneen combat ak beneen gonek pikin mu nekk combat boo xam ne nag risque la bu baax ci euh, Tapha Tine suñu lamb tam di ñu xamal ni ci biir combat boobu ay moromam bañ nañ ko jël tafaatin Tine daal di jëlaat li nga xam ne ni mooy ambition revoir leen à la baisse pour mun a am combat daal dellusi si li nga xam ne mooy arène bi suñu lamb def ak ñun tam ba tey ci combat bi micro sondage ak ay amateurs ñi mais nag la ñu gën a xamle mooy tafaatin Euh, nar na teg lu métti ki nga xam ne ni mooy booy Niang 2 loolu la ñu sunu lamb andil ñi nga xam ne di ay journaliste ak ay amateurs ñëpp daal di si joxe seen i xalaat ñu des ba tey ak sunu lamb sunu lamb ñëw ak ñun ci. Euh, négociation yi nga xam ne guy gi rompre na ko ak euh, waa nee na nan lañ def tey ba mën a sauver li nga xam ne nii mooy combat bi dox diggante rëg-rëg ak guy gi nan la yeneen promoteur mun a ñëwee ba daal di sauver boobu affiche suñu làmb yemul foofu de suñu làmb continuer ak ñun euh, guy gi siis góor gi siis di daal di promoteur moom nag ñëw nee na fixé ay ambition am wax nan la bëgg conquérir Sénégal mais Rufisque la ko bëgg tàmbale daal di wàcc dem euh, ci yeneen gox goxaat yi ñu dem euh, ba tey des ak sunu làmb fekk fa signature contrat bu dox diggante Abdou Gueye ak Orton ñoom nag diggante bi ñu taxawaleeg seen combat léegi commencé nañ sàndante ay pic commencé yëngale euh, te dara xewagul ñu dem fële ca record fekk fa ab Ndour moom nag mu ñëw tey ci Boy Niang 2 Boy Niang nag eh, ginnaaw bi nga xam ne Balla Gaye rëcc na ko mu bëre mu war a bëre ki nga xam ne mooy Tapha Tine nee na nag eh, carrière am wu ko rek ci benn mbër maanaam toog di xaar kenn rek jëmale suba te xamul leen kañ ngeen di bëre ba tey record ñëw ak ñun ci combat Sa Thiès Garga nan lañ ko taxawalee ak eh, ci ay simili maanaam ki nga xam ne moo nekk seen manager di Basirou baabu bi muy ñëw Leewtoo xamul woon ni dina fi taxawal combat ñaari point moom yooyu passé ay coup de woo ñoom Balla Gaye ak kanwu Garga Mbossé ñu waxtaan ci cachet daal di déggoo daal di taxawal li nga xam ne ni mooy Sa Thiès Garga Mbossé mais ba tey Abou Ndour ñëw na ak ñun ci combat euh, Boy Niang Tapha Tine nee na ñi nga xam ne nag ñoom ñoom la impacté du kenn ku dul euh, Lac de ak 2 ak Yékini Junior ñoom ñooy les principaux impactés ginnaaw bi nga xam ne seen i adversaire potentiel am nañu combat ñoom ñaar daal ñoo ci perte taxaw nag di xaar leneen ndax dinañ am na yeneen proposition ñu dem ba tey ak euh, record mu ñëw ak ñun ci guy gi mi nga xam ne nii rompre na négociation yi ak euh, GFM moom nag euh, ma ngay xaar yeneen promoteur pour yeneen proposition parce que jàpp na ni vingt cinq millions tuuti na trop pour mu bëreel ñi nga xam ne mooy GFC mais nag leneen loo xam ne tamit record laajte na ko maanaam Reug Reug est-ce que dina topp guy gi ci décision bi mu jël parce que guy gi nag nee na am na promoteur bu ko bëgg yóbbu Gambie tëggal ko fa combat est-ce que nag euh, Reug Reug dina daal di rompre li nga xam ne nii mooy euh, contrat bi nga xam ne am na ko ak euh, GFM pour topp guy gi fële ca Gambie mais ba tey waa kër Reug Reug ñoom di wax nee na bu fekkee GFM. proposé na leen euh, adversaire wala mu wax leen lu leer ñoom nag mun nañ ko xaar sinon nag danañ dem wu ñamit xool ni ñuy def euh, pour mën a bëre fii ak saison parce que tamit bëgguñu attaché wu di xaar ci loo xam ne nii xamaguñu kañ lay sotti dañuy jógee foofu dem euh, fële ci quotidien quotidien yi nag daal di ñëw tey ak Pape Thialis Faye ak combat yi nga xam ne taxawal na ko diggante Boy Niang Euh, ak Sa Thiès euh, Garga Mbossé nee na Pape Thialis nag c'est le dernier arrivé moo mujjee ñëw waaye moo njëkk a passé à l'acte parce que présenté na komba bi di waajal euh, présenté ba ca des leneen tamit leneen loo xam ne nag mun nañ ko remarqué maanaam proximité boo xam ne Thialis am na ko ak yenn mbëri parce que kii di Boy Niang 2 di Tapha ak Sa première année bi Sa Thialis wàccee ci lamb ñoom la bu tëggal combat ñoom la njëkk a tëggal ñëwaat nag ci deuxième année daal di la ñuy tëggal quotidien yamu fa jël na euh, ki nga xam ne nii mooy euh, Omar Ngeban di directeur commercial ak euh, marketing bu RTS moom nag ñëw na pour seen collaboration ak Leewtoo production nee na fii ci biir semaine bi dinañ finaliser li nga xam ne ni moo leen di boole ak euh, Leewtoo pour ñu mën a gérer lépp li nga xam ne ni mooy combat boo xam ne Leewtoo tëgg na ko pour bégal amateurs yi lii lañ leen andiloon tey ci li gën a fës ci yéene kaay. salaamaaleykum mbokki sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour dañuy ñëw ak yéen seen euh, revue de l'arène daal di dem si jàngat bi ginnaaw bi ñu defee li nga xam ne mooy revue de presse ba pare ma ñëw ak Ndeye Coumba Fall Ndeye Coumba nuyu naa la. Aja Faye madame Nia yaayu Pathé maa ngi lay fay bu baax. léegi moo tey ñu ñëw ci li nga xam ne moo gën a fës ci yéenekaay yi tàmbale ko ak euh, Leewtoo point net Bala Diouf ñëw fa nag euh, en exclusivité waxtaan ak ñun ci li nga xam ne ni mooy retour am ay kay ambition am. waaw comme ni ma ko waxee woon ak semaine dernière Bala Diouf daf ñu joxoon information en exclusivité nee na ginnaaw mu toggee ñetti at annoncé woon ne dafa jël retraite tam ñëw nag euh, tey wax ne que mi ngi dressé nag ay ambition maanaam ñan la war a bëreel la moo tax mu jógee écurie Yoff ak aussi lan moo ko indiwaat tamit si làmb ji parce que ñu bëri nañu wax nag lan moo tax Balla annoncé Euh, retraité am ñëwaat euh, léegi annoncé waat encore euh, retour am si arène bi nee na daal si ñëwee si làmb ji kenn dong tax a ñëw muy ki nga xam ne mooy Baye Mandione. Baye Mandione nee na xaalis tax ko taxul mu ñëw si làmb ji nee na jëm na si yaramam loo xam ne moom kese moo ko yëkk donc jógegul âge retraite bi donc moom moo tax nag mu ne day ñëwaat si làmb ji. mu ngi joxaat nag beneen information de taille si toujours leewtoo point net nee na jóge nag écurie Yoff léegi nag ñu ngi si teg si tamit nekk tamit mbër boo xam ne il est toujours en activité waaw euh, nekk mba muy ay information xam ne mën ngeen ko fekk fële ca Leewtoo point net leneen loo xam ne tamit euh, Leewtoo point net euh, ñëw na ci muy ginnaaw bi ñu tabax taxawalee Tapha Tine nag Boy Niang 2 nag la grand perdant du kenn koo xam ne ni la de Guiers la. foofu tam li ñuy wax ne ki nga xam ne mooy Lac de Guiers moom mooy le grand perdant sooy seet Aïcha Faye fan yëpp ñu doon laam laam naan Tapha Tine kan la war a jël soit Boy Niang soit Lac de Guiers 2 euh, négociation yi nag taral na si diggante Boy Niang la Lac de Guiers 2 mais finalement c'est Boy Niang qui a la chance de décrocher combat ak moom mooy hmm, mooy Tafatine hmm. beneen adversaire. ak beneen nekk moom ba tey ñu dem euh, ci sunu làmb sunu lamb ñëw ñun ñun ci Tafatine ginnaaw bi nga xam ne ni euh, bëree woon nag euh, benn doomu pikin muy Ama Baldé Ama Baldé daan ko mu ñëwoo tamit tey jël booy Niang 2 beneen xale bu nekk pikin nee na nag risque la. bu mu jël tafa tafaatin. waaw Aïcha bon moom moo ne euh, risque la bu dañu xaar ba xam jour combat bi mais xëy tamit tafaatin euh, xëy boo ñaanee nag combat bi moo ko boppam mais gëm naan tamit tafaatin am lu mu tamit su jëlee tey booy ñaar parce que gis nañu humiliation lu ko Ama Baldé def te combat bu defetu ak euh, defetu tafaatin boobu si kanam Ama Baldé moo ko topp ba léegi ba nga xam ne am na problème sax pour am ay adversaire léegi nag suñu occasion boo xam dafay rectifier maanaam. jël nam euh, mhm. euh, ñu dem euh, tamit ñu des ba tey ci sunu lamb mu ñëw ci li nga xam ne ni mooy rëg-rëg ak guy gi ndey kumba mu nekk combat boo xam ne nag guy gi arrêté na négociation yi sunu lamb di laajte kan moo mën a sauver affiche boobu mais ba tey Abou tam ñëw ci record di ñu xamal ni tamit comme guy gi am na proposition fële ca Euh, Gambie beneen promoteur bëgg na ko fa tëgg est-ce que Reug Reug tamit du dem jéem a topp ki nga xam ne nii mooy euh, guy gi pour jéem a bëreeg moom foofu ca Gambie. plusieurs rebondissements parce que euh. tey dañuy xëy ni journaux yi ne ne combat bi taxaw na Reug Reug ak ki nga xam ne mooy guy gi beneen jour tamit ne ne guy gi mu ngi def monter les enchères nee na mi ngi laajte li nga xam ne mooy 45 millions ñu mhm. ñëwaat beneen jour ne journaux yi ne ki nga xam ne mooy GFM proposé na 25 millions finalement doo xam aussi combat boobu kañ la fa yéene taxaw léegi na xëy na nag looloo tax journaux yi ki si mel ni comme euh, record si xalima Abou Nour ak euh, sunu lamb ñu ne xëy na combat boobu daal ci tàbbi géej la gën a euh, nuur que nga xam moom la gën a jege muy que muy taxaw ki nga xam ne mooy Reug Reug moom nee na prêt na pour wutaat GFM mu tëg ko beneen adversaire su fekkee ni am na Euh, guy gi tamit maa ngi dégg tamit ñu ngi lii si xalima agu nu mu ne mën na am mu dem Gambie parce que am na promoteur bëgg a tëgg mu dégg euh, yàgg rek comme ñu dem euh, fële ci quotidien fekk fa Wuri Diallo Wuri Diallo nag moom nag ndéegumba ñëw na ci retouru Pape Thialis nee na le dernier arrivé le premier à à l'axe moom nag dafa ñëw rek daal di dem drapeau bi daal di taxawal def ay affiche daal di def ay présentation mag yu mel ni noonu. waaw ginnaaw bu ko Leewtoo point net tuddee promoteur Mor ne dafa dafa dafa suqaliwaat boppam euh, jugaat daal judduwaat ne daal moom passionné wul dee daal waaw li ñu wax rek euh, le premier le dernier arrivé. premier servi maanaam xëy na li ñu annoncé woon mooru euh, maanaam Charles Faye entre guillemets léegi nag wax na daal moom daal il est toujours au devant de la scène moo tax mu taxawal combat yoo xam ne ñu bëre bëggoon nañ ko parce que tey jii ku ma xonte Tapha Tine ren ñu bëri dañu ko duñ ko mën a doon parce que Tapha Tine bu tëgg adversaire dafa yomb mhm, mhm, yombul tax xëy a euh, jàpp ne Thialis Faye il a décroché le jackpot maanaam combat boo xam ne combat jàng la déjà combat bu xam ne amateur yi bëggoon nañ ko combat daal bu neex la daal xëy moo tax ñu ne le dernier arrivé le premier service journal bi tamit quotidien mi ngi xamal ni que xëy tamit proximité ñaari mbër yi moom moo tax xëy na combat bi yomb ci moom gën a yomb soo seetee Tapha Tine combat bu mujj Euh, Leewtoo production mmh, mmh, moo ko tëgg combat revanche ak ki nga xam ne mooy Yékini junior te Balla Gaye tamit euh, Boy Niang avant dernier combat balaa ñu bëri na dëgër ki nga xam ne Pape Thialis Faye moom moo ko moom moo ko tëgg xëy na moom moo tax proximité mhm. euh, tamit euh, di directeur euh, commercial ak marketing bu RTS nag moom ñëw na ci li nga xam ne ni mooy collaboration ak Leewtoo moom nag nee seen leen di boole fii ak dans la semaine dinañ finaliser lépp seen collaboration daal di gën a dëggu. benn <laughs> lay tooy ren dafa delluwaat buum sa boy boy ba. Hmm. nee daal moom daal gis nañu kenn ku dul bëre euh, <laughs> signé ak waa RTS. ndax du bàyyi yoonam voilà ndax du bàyyi yoonam loolu la euh, Ngeraan wax moom mooy. Ngebaan hmm. Ngebaan directeur commercial marketing euh, de la RTS moom nee na daal fii semaine ci biir semaine bi di nga signé ak ki nga xam ne mooy Leewtoo Production pour lu mun doxal saison bi waaw Ndeye Comba lii lañ andiloon internet yi nga xam ne nii ñooy suivre euh, Leewtoo point net di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp ak fu ñu mun ci nekk si àddina di nuyu ñoom euh, Cheikh Bass di nuyu képp koo xam ne rek euh, yaa ngi suivre Leewtoo TV yaa ngi encouragé parce que parfois yombul parce que Babacar ngeen miin ci yenn voix yi mais bon dañuy débrouiller à son absence gis ngeen di béggee ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama borom kër bu baax nuyu samay doom nuyu samay goro samay njëkkee di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax ak samay magu yaay yëpp di ñaanal jàmm ak ay rakkam di leen ñaanal jàmm ak gudd fan bu ànd ak wér ndekumba euh, euh, Baye Fall jàmmagay papa depuis États-Unis maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy Soufi Nour euh, di a depuis France ak ay doomam ki nga xam ne mooy Bébé Fa mhm. ngi si biir nuyu tamit mbokk euh, Babacar yi tuuti Yaay Sarr. Uh-huh. ñoom Khady ñoom Cheikh Bass. voilà ak Asi uh-huh. <laughs> sa mbokk naar. <laughs>